mbokki internet yi euh, rawatina yéen ñi suivre seen chaîne bi di RTV Dakar ñi leen di nuyu di leen ñaanal yàlla jàmm ak tawfiq di ñaan itam yal yàlla def at mi ñu dugg muy deux mille bi yàlla def ko atu tawfiq atu jàmm ak sutura xam naa mu mel ni ñu ngi dellu siwaat ci seen émission bi di njëriñu alquran ngeen di ko am mardi bu jot ci seen seen bi di RTV Dakar di ko ànd seen mbokk Oustaz Oumar euh, mu mel ni émission yi jàll mardi bële paase ak ba ca topp ñi ngi woon ak yéen ci suuratu Yaasin xam naa pareeguñu ci waaye danañu ci dellusiwaat siwaat allah ci wàllu kaaraange ak it ci ay mbiram yu yéeme yu nga xam ne mi ngi laxasu ci biir saar woowu waaye tey nag ñu ñëw ci ay mbir yu wuute benn bi di càngaayu ubbiku boo xam ni càngaay la bu yéeme ci wàllu saar wi ñuy wax alam nasra defe naa ni saar la wu nga xam ni eh, ñi ko xam xam nañu ni amul lu ko gën a gaaw ci ubbi nit ki ci wàllu wërsëg euh, saar woowu nag di alam nasra nga xam ni juróom ñetti aaya moo ko composé te juróom ñett nekk lu am solo kom ni ko suñu maam ja waxee woon maam Cheikh Ahmed Tijani wax di juróom-ñett lu am solo la ci boo taqalewul mu ni soo tàqalee nag mu jur musiba waaw ndax juróom-ñett mooy allahu muhammad mooy yàlla ak yonent bi ndax allahu ñeenti xaraf la muhammad it ñeenti xaraf la waaw su ko defee ñoom ñaar nag su ñu àndee am na turu yàlla bu ñu génnee ñu koy wax samaniyatul xuruuf nga xam ni mooy allahu muhammad bu ñu boole ràbbatle ko ba def ko benn ismu muy tur yàlla bu yéeme muy amula xalama xudu waaw xëy na yooyu moom ñu bàyyi ba ca kanam incha allah su ko defee saar woowu di suuratul sarxi muy alam nasra euh, secret bi ñu ciy joxe bu yéeme la ci wàllu ubbi nit ki nit koo xam ne dafa tëju wala koo xam ni ay mbiram dafa jafe waaw ah, nga xam ni ay aajoom pour mu faju dafay jafe lool wala koo xam ni wërsëgam dafa néewu wala koo xam ni dafa yore mbir te bëgg yàlla defal ko ca ak ubbeeku mbir ma yokk lum ci mën a doon càngaay bi ñuy wax lu ci yéeme la muy sóoratu sharx bu ànd ak turu yàlla wi ñuy wax latiif ni ñuy doxee nag moo di dangay bind alam nasra wante soo koy bind saar wi wax naan la juróom ñetti aaya la aaya bu ci nekk danga koy bind soixante-dix muy adadu kun ngay bind aaya bi soo bindee aaya bi soixante-dix bala ngaa jàll ci beneen aaya danga nga ciy teg yàlla tiif tur yàlla bi ñu wax latiif moom nga ciy teg cent vingt neuf muy adadu nafsan waaw ndax latif ñetti lettre moo ko composé ñeent bokk laam mooy trente ak trois muy neuf ak yaa muy dix ak fa muy quatre vingt soo ko boolee muy cent vingt neuf su ko defee aaya boo bind ci alam nasra nga bind ko soixante dix teg ci yaa latif cent bind beneen aaya waaye aaya yëpp nag boo ci jël soixante dix nga koy bind teg ci yàlla latif cent vingt bind beneen aaya noon nga koy defee ba alam nasra bi jeex su ko defee soo paree loolu ngay boole nga def ko cangaay mooy nekk càngaay bi waaye càngaay bi nag juróom ñaari ndoxu teen yu bokkul lañ koy raxasee juróom ñaari teen yoo xam ne bokkuñ tem bu ci nekk nga am ca ndox ma soo paree nga boole juróom ñaari ndox yi moom ngay raxasee saafara bi su ko defee moom ngay def càngaay bi nga sangoo ko juróom ñaari fan fan euh, su ko defee kooku moom koo xam ni danga tëju bëgg a rekk defe naa ni ñi ñi xam càngaay bi miin ko xam nañ li may wax waaw at bis bu ko nit ki jëfandikoo weer wam ko jëfandikoo bala mu ko génn dina yëg ni am na lu mu laal moo tax bokk na ci cangaay yi nga xam dañ daan wax ni nit ki bum ko jëfandikoo ñaari yoon ci at mi at mu ne bu ko ci jëfandikoo benn yoon doy na kon loolu benn njariñ la boo xadi mi ngi ci suuratu sharx muy alam nasra di dox ci wàllu ubbeeku su ko defee soo amee juróom-ñaari ndoxu teen nga bind ko comme noonu ma ko waxee noonu ngay defaree cangaay bi nga sangoo ko juróom-ñaari fan su dee da nekkoon koo xam ne mënuloo am dara wala loolaal mu yàqu wala say mbir da nga bëgg mu yokku nga am avancement bëgg a ubbeeku sa wërsëg yokku incha allahu fexeel ba defar càngaay bi nga jëfandikoo ko kon loolu mooy li dellu ci ubbeeku muy wàllu alam nasra noonu lañ koy utiliser euh, ñu ñëw nag ci mbir mu nga xam moom ñu bari ñi ngi koy jàmbat di ko tawat muy góor goo xam ni dafay gaaw a yëg boppam gaaw a yëg sa bopp nag sabab yi koy sabab bari na mënuñu ko détaillé yëpp ci benn vidéo bi waaye li ñuy def rekk mooy joxe ci saafara xëy na koo xam ni daf lay dal incha allahu su fekkee ni euh, da nga bëgg a xam sabab ba ko waral bu boobaa bu ñu ko discuter feneen mu gën a yaatu waaye fii li ñuy def rek mooy joxe saafara ndax euh, loolu wàllu rab dina ko waral te daanaka ñi dal ñu ci ëpp moo ci ëpp nag wante it yeneeni xeeti tawat dina koy waral te tawat yooyu it am na ay sabab yoo xam ni moo koy jur waaye lum ci mëna doon su fekkee ni dafa dal nit ki nga xam ni moom bu dee sëy dafay gaaw a yëg boppam ne fexe ba def lii nga xam ni moom la wax moo di dafay wut uh, diwu ñor diwu ñor moom ngay wut def ko ci cin diwu ñor gi danga koy def ci cin teg ko ci safara ba mu sens nga fejar soble nga wut soble fejar ko sotti ko ca jël nen boo mënee am nag neenu ginaaru dàq jàpp yi moo gën nga wut nen toj ko sotti ko ca su ko defee jël lem def ci jël lem sotti ko ci loolu ngay boole nga bàtti ko bàtti ko ba mu yegg soo amee mburu dugub di ko ko lekkee su fekkee am nga ko soko amulit bo amee mburo yi ni ngadi ko ko lekke loolu képp ku nga xam ni tawat boobu ñuy wax gaawa yëg sa bopp daf lay dal su fekkee ni def nga ko comme nii ñu ko waxee incha allahu di nga ca am ak saafara te it noonu muy saafara loolu non lay yokkee kàttanu góor non lay yàkkee kàttanu góor euh, xam nga diwu ñor diwu ñor su fekkee ne rek sansal nga ko ba mu sans nga sotti ci lem boole ko ak moom ba mu jaxasoo Euh, nga di ko jël lu tollook ñetti kuddu saa yooy tëdd loolu ku ko saxoo di ko def sa kàttan dina dellu bu baax baax su fekkee ni danga néewoon kàttan kon loolu moom dafa euh, dellu ci saafara boobu nga xam ni moom la ñu bari di tawat muy gaaw a yëg sa bopp incha allah eh, amit beneen tawat bu nga xani eh, moom eh, gis nañu ni moom it ñu bari ñi ngi ñu ci laaj ak saafara muy li nga xamante ni mooy li xew ci wàllu jamono ñu di ko wax yokku awra xam nga euh, dafa am ñoo xam ni dañoo am tawat tawat yi mooy seen aw la ni mu wara tollu dafa ko tollul lool nag su boobaa feebar la mën nañu ko saafara feebar boobu mook feebar yépp ñoo yam dañ koy saafara ndax loolu ba ci wàllu rab dina ko def nit nga xam ni awraam ni mu war a toll du ko toll dafay tuuti euh, su boobaa nag su fekkee ni dafa dal nit ki mu bëgg koo saafara nga xam ni awraam dafa gàtt ba mu yëg ni ni mu war a toll ko walla mu tuuti ba jéggi dayo nga xam ni tollul ni mu war a toll su boobaa nit ki bu bëggee saafara loolu dafay wut li ñuy wax ñam bi ñam bi bu tolloog na mu bëgg sàkkara ba em noonu waaw waaye na yenu maanaa su ko defee su wutee loolu mu xolli ko xolli ñàmb bi mooy dinde der bi nga xam ne moo nekk ci kaw bu ko dindee Euh, ba nga xamante ni lu weex li rek moo fa des mu bind inna ataynaakal kawsara saar boobu di inna ataynaakal kawsara mooy li ma wax sànq ni lépp mi ci biir alquranul karim su bindee inna ataynaakal kawsara euh, juróom ñaari yoon euh, su ko defee ci ñàmbi bi lay bind juróom-ñaari alam nasra yi ja inna ataynaaka al kawsara yi moom lay bind ci ñàmbi bi juróom yoon su defee su mu teg ko fële daa jël këyit walla mu bindaat ca këyit ba walla aliwo ba inna kawsara moom itam juróom-ñaari yoon su paree def ko saafara mooy limu bind ci kayit bi wala aliwo bi moom lay raxas mu def ko saafara saafara boobu nag moom lay toggee ñàmbi bi def ca xorom ak poobar mooy ànd ak limuy togg ba ñambi bi ñor su ko defee su paree mu lekk ñàmbi bi képp ku nga xam loolu daf la dal nga defee ko comme nii ñu ko waxee incha allah jàngoro bu mu mën doon boo xam ne moo sabab loolu dina wér sàkkara sa it ci kàttanu yàlla dina toll comme na ñam bi ba toll woon incha allahu rabbi su ko defee loolu moom saafara la ci tawat googu nga xani moom la mbokk yu bari di tawat loolu lañ ci doon indi incha allahu ci wàllu saafara képp ku mu dal daal su fekkee utiliser nga loolu comme ni ñu ko waxee di nga ci am saafara incha allah beneen tawat bi di tawat bu ñuy wax picc kajoor ci wolof picc kajoor nag mooy hémorroïde waaw ah, moom la ñuy wax hémorroïde moom it muy tawat bu sonal nit ñi ci jamono waaye euh, mu nekk tawat yoo xam ni dañuy wuute loolu nag pour saafara ko ci kaw bu fekkee dafa dal nit ki da ngay wut lu tolloog kilo soble soble bi ngay wut lu tolloog kilo nga dëbb ko jaxase koog lii baru karité karité bi bu karité ngay wut bu rafet bu weex tàll boo xam ne raxut dara nga wut lu tolloog kilo soble dëbb ko jaxase ko ak liibaru karité ak sungufu garab gu ñu wax njàndam waaye euh, dinaa la leeralal parce que am na ca lu nga xam ne danga koy lekk ci soble bi ak karité bi su defee la ngay lekk doo ci def sungufu njàndam bi mais su fekkee ni dafa nekk buy génn def picc su boobaa dangay jël li nga defaroon ci karité bi ak soble bi jaxase ko ak sungufu njàndam di ko ca diw moom laa lay wax ni da ngay jaxase ak sungufu njàndam léegi ni nga koy defaree mooy da ngay ruyal karité bi ba mu ruy nga jaxase kook soble sa ak sungufu njàndam sa nga di ci lekk waaye di ko diw ci sa ron su fekkee ni euh, buy génn la waaye nag li ngay lekk wax naan la du am sungufu njàndam moom karité bi lay doon rekk ak soble bi nga togg ko ba mu ñor di ko lekk kuddu suba kuddu midi kuddu ngoon incha allahu su fekkee ni loolu ñuy wax hémorroïde moo la sonal moo xam bu nekk ci biir la soo ko defaree comme noonu di ko utiliser dina wér incha allah su génn la nga wut sungufu njàndam nga jaxase ko ak karité baak soble ba nga toggoon di ko ci diw incha kon yooyu mooy yi nga xam ne moom lañu leen doon indil ci seen émission wu tey di njëriñu alquran ci seen saar woowu di suuratu sharh waaye ak ay tawat yu nga xam ni mbokk yi ñu ngi ko doon euh, euh, tawat doon ci laaj ay saafara xëy na ñaar yooyu lañ ci indi yi ci des ci yeneen mardi yi ñi ngi leen di jox rendez-vous incha allah ci seen seen bi di RTV Dakar bal ñu àqu salaamaaleykum wa rahmatullah. N'oubliez pas de vous abonner activez la cloche de notification.